ñëw parce que am na am am na loo ci waxoon euh, par rapport ak mm-hmm. confidence euh, yu la président Macky Sall defoon balaa ñuy ñëw ci loolu alors dafa am cours boo doon joxe euh, au niveau de l'université de Lyon yow nga jël la crise politique bi am au Sénégal nga diviser ko en cinq parties nga ne cinq mm-hmm. clés pour comprendre cette crise la mu mel ni ce qui se passe au Sénégal intéresse beaucoup ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk bitim réew cinq clés yooyu pour euh, comprendre euh, ce qui se passe au, Sénégal est-ce que mun nga ko partager avec nos téléspectateurs waaw euh, cours boobu école de commerce de Lyon ñoo ma ko laaj muy cours bu am solo ndax ñoom dañoo bëggoon a comprendre parce que il faut nga xam ni Sénégal réew la moo xam ni dafa intéressé ñëpp ñëpp ci àdduna bi école de commerce de Lyon di institution bu prestigieuse Euh, ñu bëggoon xam lan moo indi crise boobu ak lan moo ko mën a saafara non seulement pour seeni étudiants waaye aussi pour seen réseau d'affaires yi ñu am ci monde bi yépp mooy am d'affaires yi ñu connecté ak yépp loolu lu am solo la ma bindal leen texte benn cours tudde ko les clés pour comprendre la crise au Sénégal maanaam juróomi caabi yi nga xam ne nii buñ ci jaaree ba ubbee ko bunt bi danañ xam li xew Sénégal bokk na ci maa ngi tàmbale woon bu njëkk bi ma ne le report de l' élection à quelques heures du démarrage du du de la campagne électorale maanaam bu njëkk bi mooy élection bi nga xam ne dañ koo dàq fekk ñu ngi woon ci waxtu yu ndaw yu ñu tàqaleeg tàmbaleeb campagne électorale bi boobu boo njëkk bi bi ci topp maa ngi ko tuddee le facteur Pastef dans la complexité de l' politique maanaam Pastef ni mu ñëwee ba gën a euh, maanaam Pastef maanaam Pastef ci boppam taxawaayam ni mu gën a jafeele équation politique gu Sénégal bi ci topp maa ngi ko tuddee euh, le cas Karim Wade ou l'injustice systémique maanaam Karim Wade ak euh, maanaam injustice yi nga xam ni mu ngi koy dund te muy injustice yu bëree bëri bi ci tomb bi ci topp maa ngi ko tuddee euh, le problème Amadou Ba au sein de la majorité présidentielle maanaam Amadou Ba li mu nekkee problème ci majorité bi te loolu aussi jàpp naa ni li tax problème yi am loolu ci la bokk am na point boo xam ne aussi bu jeex bi maa ngi ko tuddee le dialogue le moindre mal pour sortir de la crise maanaam fi ñu toll nii boo xoolee ba ci biir dialogue waxtaan mooy li nga xam ni mooy lu gën a sedd pour ñu génn ci crise boobu maanaam point yooyu laa def ci cours bi bu nekk nag ma développé ko voilà. donc est-ce que mën nañu ñëw euh, ci premier ponk bi c'est-à-dire il cinq points mën nañ ñëw ci premier ponk bi euh, euh, nan lañ ci mën a sukkandikoo ngir comprendre ce qui se passe au Sénégal. waaw ponk ponk bu njëkk bi dama wane man sama mbetteel. ak sama njàqare ci décision bi nga xam ni moom la Macky Sall jël fekk ay quelques heures lañ toloon pour commencer campagne électorale bi mu daal di ñëw reporter élection bi loolu ma ma ni lu ma bett la lu méngoowul ak tradition démocratique gu Sénégal am beneen journal fii bu ma interviewé bu tudd La Voix du Nord ñu laaj ma ci loolu ma ni leen dañoo waroon a tàmbali par le dialogue xam nga bu ma ki sàll demee ba nga xam ni mënta mën mënu la bañ a reporter élection bi àdduna lépp loo xam ne nii moomoo ko te mënuñu koo pàccoo da koy pencoo waaw mënoo jóg rek xëy suba rek ñëpp di la nga ni reporter nga élection bi alors que alors que man xam naa ci sama bopp ni am na waxtaan woo xam ni bu jiitu woon. xëy na élection bi sax mënees na koo dàq te du indi coow ndax nag may mun a man mi nga xam ni rek euh, observateur la gis naa ñu bari ñoo xam ni tey ci wàllu ku gi lañ bokk yoo xam ni bala may jóge Sénégal woowoon nañ ma di ma jàllaloo ay message ci Macky Sall ngir mu dàq élection yi loolu waa kuje gi may dégg xam nañ lii may wax donc ñi bëggoon ñu dàq élection bi bari na mais ñan la mais boo xëyee. non non non loolu non non xam nga loolu aussi kilifa du wax loolu. mais ce qui mooy man man rek sama bopp am na ñeent ñoo xam ne ci ku jóge lañ bokk. woo nañ ma bi ma wax wax ju demee ni waxal Macky Sall mu reporter élection yi. donc ñi bokk ci ku gi yi bëggoon ñu reporter élection bi am na te bari na loolu mooy dëgg gi.